ko gisee euh, discours Adji Sarr dëgg moom yàllaa ko moom mu neex mu naqari maire El Hadj Diouf na bàyyi Adji Sarr mi nekk ci ginnaaw di ko influence loolu baaxul ni du yee fitna yàlla rëbb na ko yee fitna Adji Sarr na bàyyi li muy def nit ñi dañoo nekk ci jàmm ñun ñu ngi dund naajement soxna si gis nga nit Sonko ah personnalité bi mu am wallaahi xaw ma Sonko barke El Hadj Maas xaw ma Sonko musuma gis sax Sonko mais gis nga gimiñ gi wax dëgg a gimiñ gi wax fenn naa xam loolu influence la rek dafay influence bu ñuy wax ay saar bu fekkoon moom li ñuy wax dëgg la déjeel kaamil jàpp ba seet teg loxoom ni Sonko na waat gis nit booy def dara dañ siy ñeme communication Adji Sarr moo louche gis nga bu jëloon kaamil teg ci loxo bi boobu population bi ñooy fekk Sonko fi mu nekk am na loo xam ne réaction bi rek ci nga njëkk a amee nga xam ne kii dëgg lay wax wala waxul dëgg comprendre nga Adji Sarr ngir yàlla war a maa lay ñaan gi jëm Seydina Mouhamed nga bàyyi li ngay def ñun doonoo sonn na bàyyi li ñuy def ngir jëmmi rasulillahi dama koy ñaan rek entre nit ak nit jullit la quoi dama koy ñaan ngi jëmmi yonent yàlla Muhammad na bàyyi mi def na bàyyi mu sedd ngir yàlla ah Adji Sarr daal fi dara wax fi dara et puis man ma bëgg mooy vraiment Sénégal dañoo tal leneen du ay problème Adji saar affaire yooyu quoi xam nga parce que vraiment Sénégal dafa toll fam te nii dafa metti nañu jàpp nañ dakkal cool yi ñu liggéey réew mi dem kanam parce que Sénégal ñi nekk te bari dafa bëri pauvre am ñoom bu ñu añee ñu reer bu ñu reer duñ dëkk am ñoom bu ñu am lu ñu lekk Sénégal corona bi li mu ko def dafa metti léegi problème Adji Sarr ñëwaat si lii laay war a ngir yàlla nañu Adji Sarr dimbali maître El Hadj dimbali ñu ñu dund ñun waaw parce que ñoom vraiment mooy loolu ko ñun daal vraiment Adji boo ko xoolee démb ni muy wax rek xam ne lii mu wax c'est pas vrai du dëgg nañu dimbali El Hadj Diouf nag bu fekkee dafa am lu ko metti man maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu def 500 500 jox ko xaalis mu jënd kër beneen jàmm am parce que tamit Sénégal duñu suñu maam yi ñu ko liggéey ba mu toll fii ay nit ñëw bu ko yàq daa isul quoi maître El Hadj Diouf bu amee dépasse at ñu am na ñoom amuñu dara nañu dimbali maître El Hadj nañu dimbali papa nga gis euh, déclaration Adji Sarr bi ak manifestation yi amoon fii d'après li mu wax nga yaakaar ne mënut a yeewaat fitna aussi. non non gis nga benn affaire fam Sénégal am na ñoom te ni nii dañoo dañoo dañoo jóg pour yàq ko mais duñ ko mën a yàq parce que tamit benn affaire fam Adji Sarr ñëpp ñu doon naan añu Adji Sarr añu Adji Sarr mais biñ ko gisee mu wax ñëpp xam nañ li muy wax taxawul te nit kuy fen ak nit kuy wax dëgg boo gisee xam ko Adji Sarr li mu wax yëpp c'est pas te nañu dafa waat dafa waat mu ne euh, bu fekkee Sonko moom mën na waat ne sequt moom dara na teg kaamil mais yow ñun ñun ñun fii du république islamique laïque la am na ñoom te ni fii am na ñoom te ni dañuy waat barki war a barki aruxaangam te dañuy fen bu ñuy rey loolu loolu loolu du wax quoi. Adji Sarr nañu dimbali dafa war a am jëkkër am ay doom te indi na loo xam te ne nii ci Sénégal mësta am depuis indépendance ba léegi te ñëpp ñu sant Sarr dañoo rus. waxuma laa ji Sarr mais ñi yëpp ñu sant Sarr ay mbokk ndey ay mbokk baay ñëpp rus nañ parce que am na loo xam te ni moom dafa rafetul te moom sax de maa ko dégg si biir wax ji ni bu fekkoon ni xamoon na ni nii lay demee du def plainte fukki nii ak ñeenti dee nañ te moo ko waral ak ñi dagg seen loxo ak ñi tëj ak ñi blessé lépp moom moo ko waral léegi nag xoolal na xaw lool ak diggante ak yàlla nañu dimbali ñun Sénégal dund lañ bëgg nañu dimbali ñu may jàmm. waaw ba muy seq ak Sonko war a ba ñuy xamante ñun xamu xamuñ dara te fii nii tey xoola imaginer tey barki maa ngi dégg benn femme nee na salle massage lañ yor depuis problème Adji ba léegi dama Sénégalais yi dematuñu si Sénégalais pour ñu massé leen mais imaginer ki nga xam te ne dafa leboon xaalis ubbi salle massam di si liggéey di fay ay nitam di dundu dip boobu ba léegi amul amul dara lépp ñëpp ñoo ngi dem si seen waaye di dem si turkiyen yi mais Adji Sarr li mu yàq dafa bari nañu dimbali. mais ci biir wax ji tamit mu tudd ci mbirum ëmb. mu mel ni dafa wan lor yooyu tamit. bi ko bi ko ndaw si laajee ni ko ndax yor nga euh, carte de santé dañ am ko moom après sax moom xamul et puis yow nan nan lay laajee ndax da nga ëmb bi yëpp nga ni euh, loolu du ma si wax pour lan. Adji Sarr na baalu ak sénégalais yi baalu ak askan bi baalu ak monde monde monde bi yëpp parce que vraiment dafa indi loo te ni ñun mosuñu ko xam. loolu Modou Fall. voilà ñu fekk la fii bi naka nga jàngatee discours Adji Sarr bi de. waaw gis naa daf benn sortie ah. mais man leen rek moom xaw a jaaxal quoi xanaa xale bu ndaw sax ah, boo ko ñëwee expliqué ni ko dañ ma violé comprendre nga bu baax mooy la leen leen a violé nga ne ko man ki ma xaw ma ñaata yoon la ma violé en tout cas daal violé na ma violé ma violé waat ma xanaa bu fekkente ne am na xel tuuti dina la yow li ngay wax ni amul quoi parce que ku ñu violé waroo xaar ñu lay violé waat waxuma la nga ne mënoo ko compter ma loolo moom ma xaw a jaaxal quoi ci cas bi quoi. gis nga ñëpp ay Sénégal lañ quoi bur ñu nax quoi. fii ku mu neex nga nekk ak sa gel ak keneen ku mu neex comprendre nga baax def li ngeen def après kenn du dem ah comprendre nga baax xëy na moo feeñ Sonko lañ gis affaire yooyu noonu mais loolu intéressé wuñu de comme Sonko def na ci moom ak deful ci moom non intéressé wuñu quoi parce que moom waxam dafa dafa li nga xamante ni day wax lii suba mu wax leneen daal waaw noonu laa gisee daal dama jàpp ni. Euh, du lu du lu Sonko def daal. Mm-hmm. non non non sekut ak moom dara femme bi moo ko créé wax ay waxama ah, parce que fi nga xamee ni moom lu mu créé la tey day wax lii suba mu waxaat la le donc waxam bi dafa bëri kii daal. genre moo tax ma wax loolu daal loolu laa gis. mais moom mu dëggal ko waat mu ne bu fekkee Sonko waat na mu retiré li nga xam ne moo di plainte am. Mhm. mais waat du dara parce que des fois da ngay gis ki nga xamante ne sax dafay ñeme yàlla mu leer ni que ne lii muy wax ni du dëgg mais day waat dëgër fi mu dëgër après mooy loolu waat léegi amatul dafa perte valeur daal waat léegi mooy loolu yaa ma gën a xam nit ñi dañuy waat ba pare nekkaat ci leneen donc amul sens daal loolu laa gis. dëgg lépp mais jot naa ci seetaan ay waaw mais man damay wax en tant que nit Adji Sarr li mu wax man peut mën naa ko juger en tant que nit ci sama xel mu gàtt boog xëy na attul pression bi ñu ko teg te Sénégal yi dañ ko seetaan parce que nit tamit bu da erreur bu amee dañuy xool ci ñaari côté yëpp xëy na nag ki mu joteel laa laajte la wax dëgg yàlla man en tant que personne gaw ma ne viol am na fa consentement moo am Ousmane Sonko nit la kon ñun li ñuy yëg lay yëg. mais nag bi sénégalais nañ xam ne Adji Sarr la kon Ousmane Sonko dafa am nday am baa juddoo ci réew mi dëkk ci réew mi bokk ci réew mi dañ koo war a jox ay àqam mais bu ko ñëpp ñëw def ko kon un mouchoir à jeter wala du n'importe quelque chose koo xam ne jigéen la am na ay yaay am na mais ana ñuy défendre femmes yi ana ñuy défendre droit de l'homme pourquoi mënuñu défendre Adji Sarr bàyyi ko mu am ay droit am ay pensées am wax ne lii ak lii la man kaa li ma d'accord mooy gëw ma ni viol am na fa affaire bi rax na politique man sumay wax waxuma ci ay viol beeg yooyu man dama ne consentement am na nan ko nangul lenn li xëy na nag pousse nañ ko ba mu dugg foo xam ne nit rek la parce que ay bakkan yu dee ñu gaañu ñu yàq seen alal ay millions ay milliards yàqu yow mu leer sa jëmm ak jëmm Ousmane tonk moo tax mu am ba pare Sénégal yëpp ñëw daf lan ngeen baal ma ci moom bi doomu xaram daal yàlla na ma yàlla jéggal ci waxin gi kenn respecté wu la tegul yow dañ la def du n'importe quoi man loolu moo ma si xaw a métti parce que day dem ba day ragal du mën a sax wax li mu bëgg a wax lépp parce que mu ngi wax di sóor nit ñi après nan lañ koy déggee dëgg la nag wax bu jénnee boroom nopp yi lépp dañuy déglu ku nekk ak la nga bëgg a dégg nag su la ah kaa Ousmane Sonko arrangé Ousmane Sonko ci déglu bu la fekkee dëgg la rek ay dicté beeg yëpp man gis naa micro yeeg yëpp mais xaw ma mais daal man li ma bëgg a wax te mu leer ma sama xel laa koy waxee nag gëw ma fekkew ma gisuma mais damay wax en tant que man Cheikh li ma jot a dégg sama xel laay wax consentement am na. man Atoumane laa tudd. Euh, waaw déclaration Adji Sarr bi démb nan la ko jàngatee. rus am gàcce ci sama réew xam nga ma am gàcce du aji Sarr de dam foogoon maître El Hadj Diouf sénégalais yi mérité nañ leneen lu dul li muy xëcc nii parce que man mënu concevoir li xew ci réew mi yëpp li de treize morts des blessés des détenus seeni njaboot jaaxle kilifa gi ñu sëñu Muntaxa mu màgg mi dox ci ay tànku jàmm di ci sonn guddeeg bëccëg barki dem mu yëkkati cinquante millions jox ko famille des victimes pour rek jàmm am ci réew mi booba ak léegi toogul dans la même semaine dans la même semaine El Hadj Diouf defati lu doyadi liy démb dama rus ci sama réew est ñun est ñun mérité nañ lii ñun lee sénégalais Ousmane Sonko sa vie aji Sarr seen vie ñoom la concerné ñun on a besoin Macky Sall xaaruñ ko ci lii dafa war a mag lii te na xool ñi ko ñi ko wër entourage am ñoo koy sonal. wala amul benn problème nji nji lu ñu wax buur ay dagg yaa ay moo ko dal waaye nañu baa débat débat yu ñu indi ci senegal liggéeyal réew mi bay wax ji wax ji amul benn njëriñ. chaque ñun dañu ñaan yàlla tegil ñu feebar bu ñu bu ñu yàlla ci jox bay déeba déeba yi. yàlla bu ñu Sonko aji aji saar moom loolu moom ñoom ñaar ñoom ñaar daal la intéressé ñoo ko war a jënd ci seen biir. Hmm. lu lu def waxul lu ay di njàmbat. lu def waxul lu ay di njàmbat ñoom.